Assalamualaikum boku eh, internet Iba TV ñu dox tay séti Baye ñoon fekk kërëm mu relax eh, Baye Mandione nan nga dundé combat démb bi. waaw ginnaaw ñu sant yàlla bu baax a baax di julli Seydina Mouhamed may sant di gërëm suma ñaar waajur mm-hmm. di la ñu yàlla sama borom fay na ma xam di jullit yëpp mm-hmm. ma ci am contentement ba ba léegi mm-hmm. mais événement dem moom yàlla événement a neex la vraiment yaakaar naa amateur dem ñëpp kontaan naan amoon na ay tuuti faay nag ndax man yaakaar naa su ma toppoon sama adversaire démb ci ci action yi ñu doon def rek ah, lamb ji fa lay yem mais damay nit koo xam man du ma yàq lamb waaw lépp loo xam day yàq. Mhm. boo ko def biir làmb. dëgg la ndax seen yi ñu dagg seen i billets. Mhm. sañ sa seen yëre rafet ñëw toog ci stade bi. bëgg mhm. seetaan journée bu neex. kon nag ñun bëri nañuy bàyyi la su ma la. laa léppam la. benn tàkkusaan mënu boole mais bu jeexee jeex na. mais pour en cas ak ku muy mën a bëreel ëllëg. ñu baax na kenn ak kenn na bàyyi xel si yooyu. dëgg la daf bay di bëreeg mbër. ñëw ba ci cumbukaayam di jël ay sow yu mbaam xóot di ko sotti. saw mbaam xuux wallahi su ma ko toppoon dëgg la maye yëpp saw bi mhm. dal na ñoom Corna mhm. Ndiaye ñoom Pa Corna Ndiaye ñoom Sale Bigui ñoom ñëpp saw saw bi dafa lay dal ñoom ñëpp tout suma cumbukaay xisaw xun ko kéema la noyyi mhm. ma bàyyi mu sedd ma duggaat si géew bi damaan mu dabaan ma xapaat ma lépp waa ñu ngi gis lépp waaw dégg tax yaakaar naa am na loo xamante ni man seen liggéey la ñoom du suma liggéey quoi xam nga yàlla dogal na ñu bëri ci biir combat ma moom mu daw song moom ma ko mu raam def kat at mais boobu mu ngi sama ginnaaw ar gisu ko moom mu ngi sama ginnaaw mais bu nekkoon sama kanam wala mu nekk ci boori moom la gis ne gis boobu noonu quoi dëgg la après ci leen continuer bëri ma moom mu daan la xam nga loolu quoi daan kon yow da nga jàpp ne yow à preuve du contraire que dafa def kat at leer def kat at def kat at leer parce que man man dem naa ba plateau ba ma demee plateau ba toog pourtant damaa toog rek gars yi wane première action yi nii rek mhm. xam nga non gars action bi la wane mhm. man ah, wane ñu action dana action bi nii rek yaa ngi mhm. après ma xool daal di jug dem affaire yooyu quoi mais man ma ñëwaaté nak ba tok ci kër gi ba jàpp affaire ci télé bi. ba paré Sénégal génn wàll gi ñu envoyé ma affaire yi. ñëpp mhm. ñëpp envoyé ma affaire yi quoi. Mhm. Mhm. ñu do baax nga defal ko ko daan. ko daan quoi lolu moo tax ma ma suma ménagère. tamit ne ma lii duñ ko dama def mu lay neex lay nax dama d'accord na quoi ñu ngi ko di quoi ñu toog di gis nañ tamit euh, nga fecc fa fecc yu neex Sidi Diop muy woy <laughs> ak Carlo D dem da nga relax mu da non non parce que hmm. bis neexal quoi. mi hmm. ko ci yi mhm. ndax lamb bi démb ji ma wax yàlla gars yi bépp mbër bu ñëw ci lamb yi neex na ko quoi vraiment mhm, xam nga mhm. faay la amoon daal mooy histoire fa doon am rek moom moo doon la yàq lamb ji parce que dafa ñoo xam ne spécial euh, bàkk yi moo leen indi waaw ñii xam nga dokkane yi mbëri dokkane fii kafre yi moo leen indi quoi waaw ñii way yi mu leen indi xam nga ñii sànce yi ñi ñuy sànce su yore olof ak cosaan yi romb leen loolu moo leen indi ci stade bi am ñoo xam sax ba reenu leen mhm. xam nga loolu mooy waral man su ma nekkee ci biir stade du ma bàyyi damay mhm. damay bëgg a bëgg a si façon bu nekk mhm. dinaa kaf dinaa rey xam dinaa fecc dinaa dinaa mbalang affaire yooyu quoi. waaw mm. yaa ngi gën a xam daal. dëgg la yooyu yëpp ay affaire la ci làmb. Mm. ndax làmb du bëre bi kese. dëgg la waaw dañuy boolewaale tuuti sax xorom boo xamante ni yaa ngi dégg. ak di mm. bëggal nit ñi. ku la xool la gis di am di quoi dañuy am solo quoi vraiment. dañuy am solo yow est ce que xaar xaaroon nga euh, Zarko njëkk la attaqué wuti la. non non man maa ngi attaqué de. maa moom dafa xool daal man maa dosu ko mu arrière. mu arrière. ma dosu man xamoon naa mais hmm. a bi ma songee ma tee ma teeru ko ma ma ma ma. nga raak nga def trois pas arrière. xam naa ni xam naa daf may daf may song xam naa ko man. ndax boobu moom xeeb lay xam ne man damay ñëw damay xeex. mais moom mu sa xeex ak man xamoon naa loolu. ay yow da nga xamee ni nga ko xamee da nga da nu man aw ma gën barke Rasulullah man aw ma gën gën boobu sax. Hmm. mais parce que bu mu la attaqué gis ne dama gis ne nga ràcc trois pas yu garaaw nga def ko si ginnaaw. ci laa ko mu wàcc mu force waat ma dëpp ak deuxième dëpp encore. Hmm. boobu maa ngi koy xool nga gis xam naa ne song lay def. yow daal attaque boobu gisoon nga ko. non gis naa xam naa xam naa loolu ah mais Zarko du xeex ak maa ko hmm. suturoon fu gën kaa gudd loxo. Hmm. bu doon xeex ba suba dama koy doon mën a fay. mais xam nga du doful da bi Abdoulaye Sylla maa ma ne ko bër nag ma dimbali ngir yàlla ba bi andeer mètre kon dafa jaayu daal xam nga lu ma du ma wax ba waxee bi ne ma taxawal déedéet mais du ma taxawal loolu la ma wax ma ne ko ak li nga doon wax yëpp hmm. naa man man du taxaw kon dafa jaayu ah dana waar daal de dana waar <laughs> mais lu tax yi nangu ñu bagaar ak yow taxaw te face à face yi dañuy wax ah mais daa ma a yaa ma gën a xam gars moom li ñuy wax face ak biir bokkul quoi vraiment. waaw mhm. ah, bokkul quoi. dëgg la dëgg yàlla bokkul moom. Mhm. Ah, waaw maa ngi bisimilah maa ngi maa ngi tooñ Modou Mbodj doon bëgg a amee di ko wax. Mhm. maa ngi kaa soxla léegi indi boobu si liggéey bi lay sànni. ma ne ko li ne wax yàlla amoo amoon numéro te mënut a yàlla. ah dara quoi.

yaay xoromu làmb ji wala nu mu demee noonu te yow doo roi des arènes man naa mën a problème bi askan Sénégal waaw man aw ma seen fay damay bàyyi yàlla suñu borom quoi parce que tey melu ma fi noo xamante ni tey dama lay xool li ma bëgg wala dara te damay wax ne Sénégal tey bu ma wax ba baam nga ba Sénégal man kenn bañu waaw ndax damay génn damay dégg ba damay tiis sax billaahi wallaahi taala xoolee saa bi démb li muy bëri bëri bëri bëri yaa ngi dégg sama adversaire saa bu ñëwee dokoon na sax nit ñi ñoomay calme ba sa bi par exemple ba ma yoon na ma ni bàyyi ko bàyyi ko bi ko topp xam nga loolu tamit wax dëgg yàlla ma ci remercier Sénégalais xëy na li ma leen wan su ma diggante ñoom wàllu comportement moo tax ñu ma cër boobu moom quoi hmm. mais maa ngi sant Sénégalais yëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla defal gu naan ci mën a am naa ci ñoom bu korow fuuf ndax hmm. aduna amul solo li may wax sa jour rek làmb ji fo rek la hmm. ñun ñëpp ñoo bokk nday ñun bëri ñoo bokk bàyyi ku nekk da nga ñëw jël sa wut rek yóbbu sa njaboot loolu kese la quoi affaire moom dëgg la ñu bëri ñooy wax sa combat guy gi guy gi wala <laughs> guy gi bàyyi ma ñoon guy gi pare nga wala man guy gi sax pare naa guy gi dama jël déedéet kay lu du la jël ah da ngay mbër comme moom. du la guy gi moom sa jël. ah lan lay ragal si yow. non suñu bëre bokkul ma ah, bu la jëlee nag bu boobaa nooy de. Hmm. su ma jëlee guy rek ci biir <laughs> <laughs> maa ngi dégg Blanc sama signature ak Baye Mandione loolu. Hmm. Armée Sénégal mooy taxaw. dëgg la <laughs> mais mais boo gisee ma posé la question yow xam nga loo xew man xam naa lu xew. amul dara si suuf Baye Mandione guy <laughs> waxal rek ko fee. eh ba lan bàyyi na la loolu laa ci moom la des quoi man pare naa. ah yow pare nga ah, guy ah. gi mais avant. yaa ngi bëgg a jaaxle yow ah. yow gars yi ñu ne suuf jëmul kaw nga ngay fësal affaire bi. ngay fësal affaire bi. waaw mais loolu njëriñam la de. waaw da ngaa bëgg a bëgg bàyyi combat bi. bëgg bàyyi combat loolu. bëgg dafa neex. loolu moom da yàlla neex. waaw champion la nag quoi. dafa ay preuve yu ne. waaw man tamit noonu quoi mais bu ñu làmb boole dañuy bëri quoi. man tamit maa ngi koy encouragé si defee diggante ma rek suma rek. waaw di wax ne yow que entraînement yi ak liggéey boobu ne taxaw cër ci lamb ji la. moom tamit vraiment amateur ñëpp ko bëgg jël sa avance. ah loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla moom am na solo quoi. ah bu ko defee mu neex de. xëy na bu ko deful te yéen ñaar ñëpp bokk manager ah. ah waaw loolu tax mu neex. ak yéen jili. bu boobaa jili lu muy taxawee père jili. wala papa guy gi rek ngay xaaj ci digg bi mais guy gi guy gi guy gi guy gi xam mbaa moom ndem la. loolu la ci moom la des man de pare naa rek ba mu ko dul guy gi sax pare naa man amu problème adversaire man moom amu problème man amu problème bu bu dijee beeg bu sew beeg bu wenge bi laajte moom amu problème adversaire dëgg la man du ma mbëri takk ak biir mbëri di bañ a bëri ñoom man pour ma jox nekk rek mm-hmm. dama sa suuf rek mm-hmm. mu jël yóbbu këram ma jël yóbbu sama këram bëri moom loolu la quoi wallaahi guy mm-hmm. gee kenn ak kenn si bokk mu quoi mais bu ñu yàlla dogalee si moom moom balaa maa génn àdduna pour ñu bëri wala balaa maa génn àdduna bëri yàlla bu dogalee loolu am mais bu yàlla dogalee nag mag mu duñ bëri mu sa bëri ci àdduna mais man daal pare war naa ci yàlla dogalee yàlla bu yàlla ñu xam na mu dogal yàlla suñu borom. dëgg la. ba bëri d'accord ah lan ngay tàggatoo. waaw di sant yàlla suñu borom rek. bu mm-hmm. baax a baax a baax di julliwaat Seydina Mouhamed. Mm-hmm. waaw di ñaanal askanu Sénégal mm-hmm. gis naa yéegi gis naa jàppale gis naa taxaw gis naa cofeel. a def la nekk ci dëkk tey. ah gënoo fa aboo fay mbokk gënoo fa riche. yaa ngi dégg mooy lu ma wax sànq rek doomu aadama yi di lu bëgg ci bu nekk loolu nga war a sant yàlla suñu borom hmm. man du ma mbëru supporter man mbëru amateur la hmm. xam nga gars yi bu na mee kooba day dem diw day kaar ak yëpp ay supporter di nangam donc nag kaar nañ fu jóge supporter nañ dem hmm. mais man sama supporter fu ñu jóge Sénégal fu ne fu ne fu ne fu ne fu ne ay amateur dañuy ñëw ma mee combat dañuy ñëw quoi vraiment waaw looy wax waay baax xam nga déplacement bi nga def ñëw moom yaay lamb quoi ñu ne yow démb la woon ñëw mm. kenn ku nekk particulier ci carrière am dañuy bëri paloo jox alal mm. mais si bi nga yor nii tey yàlla na yàlla soo borom def ci sujet a mbokk nga mm. na yàlla nga def barki seen am xam ne looy wax guy gi wax daal ñun bëri yëpp baa baa nga mooy wax ne dama ma siiwal saa Sénégal siiw quoi waaw may wax ni Sénégal yëpp nañ préparé quoi vraiment xam nga lu rëy a ngi ñëw déedéet luy rëy lu rëy a ngi ñëw <laughs> jërëjëf mon frère donc ñoo ngi woon ak Baye Mandione ah, ah bàyyi na fi nouvelle de mais am na luy xeeñ de <laughs> waa Sénégal waaye Sénégal lu rëy a ngi xeeñ ah, affaire à suivre <laughs> à suivre